askanu Sénégal ne njariñu réew mi la waaye jafe woon na loola yéen a kaay gi de la Tribune daan dikk ci lu soxal wàllum émigration clandestine gi nee na bëri na ay ndaw yoo xam ne natt yi ñu tekk bu ñu ko tekkee si la ñuy paas jël gaal gi dem bitim réew yéen gi nee na natt yooyee moo leen di sànk yéen a kaay gi de la Quotidien wax na ci lu soxal ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ak dogu bi nga xam ne waa Union européenne dogu nañ ko ngir indi leen ci réew mi yéen gi nee na am na benn société de conseil bu nekk ci ministère intérieur bu France ñoom la ñu dénk mbir mi lu toll ci 39 milliards génn nañ ko ngir lal ay pexe ngir génne mbooleem africain yi nga xam ne ñoo nekk Europe te amuñu ay kayit këyit kay gi nee na émigration clandestine ak deuil national bi nga xam ne moom la ñu doon amal ci réseaux sociaux yi loole nag ñi ko doon def am nañu ci ndam bu baax a baax yéenekaay gi nee na deuil national bi Aminata Touré ak juge Hamidou Dème bokkoon nañu sa yéenekaay gi di critique ñëw na ci deuil national bi ak ni nga xam ne moom la ñu ko doon màggale ci réseaux sociaux yi yéenekaay gi nee na Macky Sall ak Moustapha Niass lañ na ci mbir mi kenn ki moom dafa mel ni dafa sa mel ni ku muuma yéen a kaay gi ñu fekk fa Ismaïla Sène di ab sociologue nee na nag état bu Sénégal noppi xam ne noppi na ko ci lu jëm ci wàllum national bi la ko waral lu gàtt la état bi xam na ne mooy responsable ci mbir mi yéen a kaay gi di L'As nee na Macky Sall ak tontu yi nga xam ne tontu na ko Emmanuel Macron loole nag Iran Ndaw moom daan na koy rafetlu bu baax a baax waaye Imam Makhtar Kanté nee na li Macky Sall wax yëyu ko benn yoon yéen a kaay gi di Les Échos ñu fekk fa Bokor Diongue APR parcelle moom nag nee na Amadou Ba mi nga xam ne génn nañ ko ci gouvernement bi loole lu am solo la sax ñoom jàpp nañ ne Amadou Ba moo tax parti bii di APR am ay jafe-jafe sa parcelle yéen a kaay gii di Dakar Times nee na Macky Sall def na loo xam ne mébutu Abdoulaye Wade la lu Abdoulaye wadd bëggoon mooy famille libérale bi daa di daje Macky Sall ma ngi koy defal Abdoulaye Wade te léegi tey mu réussir ko léegi mu am ci ndam ndax ma ngi leen di dajale bu baax a baax Idrissa Seck Samuel Sarr Ousmane Ngom Souleymane Ndéné Ndiaye Modou Diagne Fada Abdoulaye Baldé Farba Senghor Omar Sarr Maître Amadou Sall Babacar Gaye Abdoulaye Sow Aliou Sow ñii ñëpp ci famille libérale bi la ñu bokk te Macky Sall ma ngi leen di wagg-waggal yéen a kaay gi de la Soleil daal nay xëy wax ci njàng meeg njàngale mi ak protocole sanitaire bi nee na jafe na lool ngir ñu daal di wàccoo ak mooma yéen a wax na fan la commencé nee na bu njëkk am mécanicien la woon jafe-jafe yi nga xamante ni mu ngi koy dund wax na ko nee na lu bari soppeeku na ci wàllu musique am wax na tamit ci coronavirus bi nee bi andi lu ko ay jafe-jafe wax na ay projet ma wax na tamit lan moo tax muy way làmb ji saa su nekk ma ngi ci réew mi quotidien yéen a kaay gi di dañoo njort ne ab jihadiste la teg nañu ko loxo si Touba tudd na ay kilifa diine yu mag yéenekaay gi du Source A nee na waa ji nga xam ne teg nañu ko loxo Touba daat nay wax ne moom bokkoon na ci groupe terroriste bu Libye wax na tamit ne jàngal nañu ko ay technique de guerre wax na tamit ne xam na ay armée terroriste yu baree bari bu si mel ni état islamique ak waa Al-Qaïda jamono ji jëlee nañu ko Touba andi nañu ko Dakar yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy yóbbu ñu diwaanu Amérique nee na Donald Trump ginnaaw bi ñu ko gañee ba léegi nii maanaam mu lànk kandaare lànk defet boobu ki nga xam ne moo